waaw xam nga euh, bu métti li nga bokk rek ngay nekk bu neexee as gor am ngay gis. dëgg kon yaakaar naa ne fii moom dara nekk fi nañu mën góorgóorlu rek te xam ne àdduna day jeex dañu jàppalante te yéeneente jàmm loolu mooy ne sincère ànd yow mën a yomb mais lépp dafa nga sax ak yàlla koy nekk yàlla yàlla engrais daal maa ngi ci waat may wax. waaw waaye sama waaw message ngay lancé. guy gi yàlla may ndam ci barke alxuraan. dëgg yàlla moom la ñu yéene ndam parce que moom la ñu xam. moom la ñu bokk ak yéen géej waay. très bien merci. merci.